journée sans sans presse pour lan la. vendredi. parce que on a coupé la presse nay nay àddu avant di lakkale. nay artu nay artu avant di lakkale bu fekkee il y a wala des médias yi nga xam ne ñi ngi def loo xam ne méngoowul ak ñuy xaar si ñoom na ñun journaliste bi journaliste yi suñu association yi nañu jóg wax ko. Mm-hmm. mën ñoo bàyyi également quand même dans ce pays là yow xam nga ni journaliste nga beaucoup de gens son sont plus fiers d'être journaliste dans ce pays là. yaa ma gën a xam c'est pas parce que dañuy fëgg naan ay journalistes ñu on va se battre avant tout pour ñu mën a taxaw bu ñu xeexee suñu xeex am am njariñ mooy nañu comporté wu de manière responsable ba nga xam ni ku ñu jàkkaar loolu nga nar ñoo jam dañu xam lañ lay wax nañ leen xoolaat suñu bopp si suñu façon bi ñuy defee liggéey bi nañ leen xoolaat suñu bopp façon bi ñuy defaat liggéey bi boobaa képp ku ñu nar a jam am nañu possibilité jàmbaarloog yow. d'accord loolu laa bëggoon c'est un appel à lancer pour la